ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ku toog ci seen bureau Core T4 Core X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci dañu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gii leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien. kër gu nu amel Serigne Sall maa ngi yëkkati kàddu di nuyu sëriñ Cheikh di ko siyaare te di ko màggal sunu sang ba maa ngi ñaan mu yàgg fi te di di nuyu bokki taalibe bi murit yëpp di leen ndokkeel ci tool yi Pastef bi gaawaayu tool bi wane na ni murit yi dañoo baax lool te bëgg Serigne Touba maa ngi beral nuyoo cantaakoon yi nag waaw bépp cantaakoon bu fi teew maa ngi lay beral sama nuyoo di la sant cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem bëgg lool ci ni tool yi demee cant gi ñu jëkk gi ñu am nag mooy tey danoo xëy bi tool yi di waaj jeex sëriñ aboo jóge fi ñëw fi jóge ca sëriñ ba ñëw fi indil ñu cantuk sëriñ bi daal ñuy sant ni naa ñu sant mbooloo mi ci pësteef bi ak ñëwin wi euh, sëriñ bi dey daa baax rek dañu sant waaye cant gi moom ñun ñi ñoo ko ñoo ko ñoo amee ñoo ko war a sant ba dab ndax lii mënu defal man day mel na ni sax yaakaaratuma ko wax dëgg yàlla ba ma leen dee wax dëgg rek waaye ndekete yërmandeem ak mbaax ga te mooy sëriñ ba kookee mooy moom rek te mbooloo mi di mbooloom sëriñ bi moo waral mu jël loxoom bu tëdd ba teg nu yebal nu ci toolam yi indi nu fi ngir rek euh, ndamal nu euh, ndax nun tool yi day mel ni laata mbooloo mi dëgg-dëgg di egsi sax tool yi jeex kon eh, dañuy cee boole rek ngir dimbali loolo nag ñun noo ko war a xam sunu cant ci moom daal maa ngi koy biral àddina te fas yéene namm Pastef yi defaraat toogaay yi te fas yéene topp ci moom di ko déglu lu mu wax loolo lañuy def lum nu digal ca loolo la ñuy ne joxaat nañ ko sunu bopp di yeesal lépp loo xam ne doxoon na sunu digg ak moom doxoon na sunu digg ak sëriñ Saliou ñu ngi koy yeesal ci moom wax dëgg yàlla cant googu laa ne woon ndax li ëpp ci wax ji sëriñ Serigne Khadim wax na ko moom ak sama rakk yi fi teew maa ngi leen di beral ak cant ginnaaw bu ma santee taalibe yi maa ngi leen di sant cant gu wér di leen sant cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee moom it waaye amul fu mu yem ndax booba ba tey nu ko àndee ak nun ñu ngi fii te kenn mënu leen ci tool di di sant bokk taalibe murit yëpp na waaw sama sama kàddu yemul rek ci njaboot gi waaye daa yem ci ci bokki taalibe murit yépp ci jullit yëpp ndax fii am na ay ñoo xam ne du ñu ay murit sax ñu fi teew ndax sëriñ bee tol noonu